karama Seex Ahmed Tijaan ci dal nga réew mi yaa gore mbar du yaloo day màgg daan xajoo ci mbii ton doo moroom jaarama Seex Ahmed Tijaan ci dal nga réew mi yaa gore mbar du yaloo day màgg daan xajoo ci mbii ton doo moroom jaaraama Seex Ahmed Tijaan ci dem nga réew mi yaa gore mbar du yaloo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسل إلى العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashaabihi xayri quruni al umam ixwata almushahidina alkiram nuxayikum bi axsani altaxiya wa azkaha ala alitlaq wa hiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amaamakum altalibu almustarshid alxaaj Mor Mbay wa maahu qasidatun shicriyatun ألفها في حق السيد شيخ أحمد تيجانسي المكتوم والقصيدة بعنوان صرخات الفن المظلوم بعد اختفاء الشاعر المكتوم الشعر فخر بعدكم وهجاء وأداة ظلم للوراء وهراء وأزال قيمته وضيع شأنه umamun xalaa min zawqihim in shaa'u walkullu yahdiru fiihi waqtan waafiran kasban wa haza sayyi'un wa balaa'u maa kunta taktubu taaliban min shuhratin aw rifcatin yamtaazuha alfusaxaa'u kunta albayaana ida ibtakarta qasidatan cajazat bi wasfi jamaaliha alshucaraa'u kuntal bayaana ida btakarta qasidatan ajazat bi wasfi jamaliha shuaraau mudghibta ghaba jamaluha wa bayanuha wa araqa wafiha biha al-itaau wa qad ibtada'ta min al-badi'i tafannunan ashya'a laysa yahuzuha al-udaba'u wa katabta ma law udda aadala ximlahu fiqlul jibaal wa maa xawathu samaau wa katabta maa law cudda aadala ximluhu fiqlal jibaali wa maa xawathu samaau yaa shaaciran fi casrihi wa zamaanihi shacrii li shacrika fidyatun wa fidaau falfannu yabkii min raxiilika admucan wal aana yaktubu man yashaau talaacuban wa yaquudu fanna xayaalihi l ahwaau wal aan yaktubu man yashaau talaacuban wa yaquudu fanna xayaalihi l ahwaau maa abdaca alshucaraau bacdaka nutfatan illa wa dammuu sayidan wa asaau maa abdaca alshucaraau bacdaka nutfatan illa wa dammuu sayyidan wa asaa'u radiya al-ilaahu alayka man xalaqa ath-tharaa wa tadahhashat bi kalaamihi al-bulagaa'u radiya al-ilaahu alayka man xalaqa ath-tharaa wa tadahhashat bi kalaamihi al-bulagaa'u xam naa bu delloo ci qasida bi ñoo ngi koy def ci baxru kaamil mawduu bi wala unwaan bi ma ngi nekk saraxaatu lfanni almadlum baada ixtifaai shaaciri almaktum te mooy ginnaaw ba fi Seyd Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum jóge jooy yi aar di jooy ak mettitlu gi muy mettitlu façon biñ koy jëfandikoowee mawduu bi maanaam buñ ko doon tënk rek ci loolu lay wax xëy na duñ ko firi firi vers par vers mais dinañ jël les idées principales di texte bu ñu paree incha allah ñu daat koy ñu daat koy génnee ci njalbeenu qasida gi ñoo ngi tàmbalee tudd tumranke gi nga xam ne moom la poésie tumranke ginnaaw ba fi Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si al maktum jóge te li ko waral mooy rafle gi mu rafle mbubb ya nga xamante ni si moom lañ ko xamee woon ñi fi nekk jël yeneen mbubb daat ko koy solal mbubbug puukarewu mbubbu tooñ mbubbug euh, tagg koo xamante ni si tax a tagg wala xas koo xamante ni si amoo droit xas ko loolu moo tax xasida bi ñu tàmbalee ko foofu te mooy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si al boo xoolee mbindam da ciy gis ni moom amul woon plume corrompue lépp lu muy bind day fekk mu nekk loo xamante ni sii lu muy lu muy dund la wala mu fekk loo xamante luy amal nit ñi luy amal nit ñi njariñ la léegi su fekkee dañoo dem ba poésie nag amatul benn njariñ bi wala ñu jël yeneen yére daat ko koy solal nit ñi dootuñu ko joxati benn valeur bi wala benn importance bi moo tax saa su ne dafay jooy ak di beesal nammeelam ci Seyd Cheikh Ahmad Tidiane Sy tudd nañ ci aussi rey bi nit ñi di rey seen temps ci xasida yi ak di ko bind te dara waralu ko lu dul def ko muy amukaay wala jëlukaayu xaalis te loolu moo lay yóbbee ci liñ tuddoon sànq te mooy da yóbbu ci nga dem ba am benn plume corrompue maanaam soo bindee rek saa yoo yëngalee sa xalima dafay mel ni sa xalima moom moomu lu too ko waaw beneen bi tudd nañ ci Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al ni mu déggee woon al maanaam balaaxa xam-xam la boo xamante ni si mooy li ñuy tuddee science de la rhétorique moo lay jàngal naka ngay jëfandikoo li nga bëgg a wax ci anam boo xamante ni si mooy anam bi gën a rafet moo tax ba muy tagg sëriñ Babacar si ni ko araalaka fi madxi tijaani yi sayyidi asaliba toxti chaara xaqa xayaalihi mu ni ko yow sëriñ Babacar si gis naa ni booy way Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif il sama turandoo dangay ngay ci poésie boobu noonu ak di ko jox sa véritable imagination créatrice loolu mooy dellu siwaat ci moom ba tey te mooy ku ciy liir ay xasidaam di nga yëg zawqu boobu cafka boobu nga xam ni moom la ay la bindam am moom Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum loolay tax dafay raar lool nga gis benn xasida boo xamante ni si dafay ndiru ak xasiidaam parce que xasiida yim daan bind dafa am lu tax mu daan ko bind waaye ñëwul rek di bind comme ni ko jamonoy tey nit ñi di koy defee tudd nañ ci aussi différence bi nga xamante ni si mooy am ci diggante xasiida bu sëriñ Cheikh ak xasiida keneen ku dul moom ndax li koy wuutale mooy zawq biñ tuddoon sànk te mooy cafka bi ak jubluwaay bi lan moo tax ngay bind yooyu ay question la yoo xam ni bala ngaa bind dañ koy war a bi ci des mooy gannaaw Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daf koo jooy mboolem aar yi tamit daat koy jooy parce que boo tuddee aar poésie dafay dugg leneen ak leneen tamit dafay dugg maanaam mbind ci cadre bu général moo tax mbind gannaawam dafa soppeeku tey dafa wuute ak liñ koy defee ci jamono jamono bii xanaa di ko ñaanal ci jeexintalu xasida gi ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkem yàlla mi nga xam ni waxam moo supérieur yeneen wax yépp yàlla ko yàlla def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaaraama Seex Ahmed Tijaan ci dal mi yaa gore mbar du yeloo day màgg daan xajoo nii ton doo moroom jaaraama Seex Ahmed Tijaan ci dal nga réew mbar du yeloo day màgg daan xajoo nii ton doo moroom jaaraama Seex Ahmed Tijaan ci dal nga réew mbar du yaloo